pourtant mënoon na ko mu joué ci benn partie de. nous sommes dans la chambre. G7. La chambre G7 du Premier ministre Ousmane Sonko à l'époque étudiant ici à l'UGB mi ngi noonu di saafonteeg étudiants yi occupé chambre boobu tey ah waaw bloqué la. waaw ok yéen a le premier ministre euh, Ousmane Sonko fii. ah bon. ah ok ah, la mosquée était juste là oui oui ak le kii médical. non médical. non non avant. amoon na benn fii à l'époque yow xam nga bi ñuy bi ñuy doog a ñëw. Tout, tout est mou, tout est mu, tout est mu. Nee na la chambre est petite. <laughs> Ouais. C'est un pèlerinage qui moo dikk fii. Donc vous êtes deux ici. Euh, trois. 3. Dans chaque poche. Dans chaque poche Dans chaque. Oui. Ici 3, là-bas 3. Ça fait 6. C'est compliqué. C'est Pendant les 4 ans, j'ai gardé la une femme. mais fii dafa mënoon a sedd na. waaw waaw waaw fii la sedd parce que le soleil ne touche pas quoi. Ah le soleil ne touche pas mais il faisait ah président kontaan nañu ne tey moom. ah mais man maa ngi lay kontaan te alors que émotion qu'on vient ici. devant les gens sortis de mes personnages je l'avais fait ici devant la porte. dëgg la dëgg la en quatre vingt quatre vingt quinze. quatre vingt quinze waaw. jël ko fii. non non c'était le premier t-shirt pour la. d'accord. ah c'était ah c'est ça uniforme loolu du ministre. il y a des commandes. ok. en tout cas décourage. le pèlerinage effectué dans la chambre d'étudiants du Premier ministre Ousmane Sonko ici à l'UGB G7 Premier ministre Ousmane Sonko fekk fi jàmbaar yi ñoo fi nekk vous êtes en master en en master 1 français moom mi moo occupé la chambre où était le Premier ministre Ousmane Sonko qui à chaque fois, quand il vient à UGB, effectue ce pèlerinage durant l'élection présidentielle de 2019 campagne jotoon na ñëw fii nii nga xamante ne aussi c'est devenu un lieu de pèlerinage mais aussi la boo xamante ne xale yi mën nañ ci inspiré wu lépp fii la commencé et l'UGB est fier aujourd'hui de ce qu'est devenu le premier ministre Basile

ministre def na ce nga xamante ne moom moo di euh, bi pèlerinage def na ko pèlerinage euh, bu PM di def euh, chaque année waaw jaajëf bi premier ministre def chambre g waaw chaque année bu fi ñëwee daanaka si le temps lui permet daf fi ñëw on se souvient de la campagne présidentielle de 2019 ñëwoon na fi visiter ko et en même temps aussi dem ci restaurant ba mu di un habitué des lieux et qui revient avec plaisir à chaque fois di leen euh, et je rappelle que c'était dans le cadre de la journée Setal Sunu Réew euh, seetal suñu réew à Saint-Louis travaux euh, opération de nettoiement yi premier ministre Ousmane Sonko moo ko joxee euh, fii ni nga xamante ne moo di Ndar sur trois lieux voire quatre lieux même premier bi mi ngi ne woon ci plage euh, bu Chaumière fële ca Guet Ndar après ñu dem Pikine ah Pikine euh, mu sa mu euh, xool euh, situation travaux yi fa waroon am waaye mujjut a am mu di station de pompage ak bassin de rétention bu foo waroon a am ah, avec une valeur de soixante milliards depuis deux mille dix huit non exécuté premier ministre demandé qu'on fasse les comptes le plus rapidement possible ñu jox ko dossier yi nan nan la ak naka la travail travaux yooyu noonu mën a jëlee autant de temps daanaka réaliser wuñ fa dara après dem ginnaaw raay xool ci li nga xamante ni moom moo di euh, situation bi nekk bi foofu parce que foofu cuvette la mais en même temps aussi napp la à chaque euh, hivernage day am problème inondation premier ministre daal di jox euh, ndigal ki nga xamante ni moo di ministre de l' assainissement Cheikh Tidiane Dièye mu jël disposition yi de telle sorte que ñu mën a protéger population yi ci inondation yi à chaque année yi fay yi fay ñëw avec des solutions structurelles et définitives yoo xamante ne dina permettre euh, ñi dëkk foofu ñu mën a pare définitivement ci mbirum inondation beneen point moo di la ndax premier ministre ñëw na euh, visiter un peu euh, li nga xamante ni mooy les travaux d' assainissement de l'UGB premier ministre mu ni euh, priorité absolue la pour ñi nga xamante ni moo di gouvernement bu Sénégal ñu jël si ay jéego daanaka lépp en situation d' la leen wax nañ ci taxaw ba nga xamante ne étudiants yi dootuñu amati benn problème li jëm ci jot ci ndox bi waaye itam ci assainissement bi premier ministre nag fii la jàngee jàngee na fii UGB pendant quatre ans mu jaar fii itam euh, waxtaan saafonteeg étudiants yi waxtaan ak ñoom ci mbiru immigration clandestine euh, ni leen itam euh, le pays ne peut pas se pèlerinage donc c'était tout aujourd'hui fii nii nga xamante ni moo di euh, Saint-Louis en attendant dans l'après-midi certainement dinañ dellu si waat ak yeneen information sur la page du premier ministre Ousmane Sonko waaye itam sur la page